yàlla yàgg tëbb dënnam leer ndax li feeg ndabam a ngi fees sunu tibb di rëy di cheikh alxaaji malik alxafid ibni cheikh alxaaji abdul aziz dabbaax mataana allahu bi tuuli baqaa'ihim jamian yal na ni yàlla yóbbale ñu yàgg fii ak wér ak tal sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di tëbb ci yow di nu ñaan nga jokk nu ci sa papa mu jokk nu ci Cheikh Alxaaji Malik mu jokk nu ca Mouhamad ibnu Abi Bakar Alfaahi Mayoro Wele mu jokk nu ca Cheikh Alxaaji Omarul Fuuti jokk nu ca Cheikh na Mouhamadul Ghali jokk nu ca Chamsul Wilayatil Kubra Barzaqil Baraziqi Sayyidi Cheikh Ahmed Tijani mu jokk nu ca maamam nu jokk ca yàlla ñiy accident yi ci yoon wi yàlla buñ ci bokk ñiy départ di xoy xoy mel ni gàncaxu seen ba yàgg ñu ne gëriif ñu di leen xamb yàlla buñ ca bokk sëriñ bi ñu ngi lay jottali nuyoo waa waalo gi ñu yabaloon yaa ñu yabaloon njànge ñu demaloon la waaye gàmmu gën a mel du ñun ndax wax naa ne avion bu sarcé ba fees naaw ci jaww ji ñu defee ne technique ko fa bàyyi njuum te am na ndax bu ngelaw li coupé woon nga ñàkk avion maa yumsikuhunna illa rahman te secret yooyu am nañu ko donn ba mën a mocc ñey mën a mocc fel mu nekk ñey du ñu jàpp ne donn ngeen ko ñun déedéet dañuy jàpp ne kenn ku ne ci yéen am na ko bi xaasiyatihi ci seen barke maam Cheikh Al Hadj Malick waaye njànge nee ñu naa la gërëm ala annani radin bi an axmila alhawa wa axlusa minhu la alayya wala liya nee ñu naa la gërëm nee ñu naa la sant nee ñu naa la wax ni bég nañu nee ñu naa la wax ne bañ fexee ànd ak yow ba léegi sonn ñu ci xel wi ndax jaarale woo leen ci dagg bi jaarale woo leen ci xaaxaam bi jaarale woo leen ci dëkk yi teg nga leen ci yoon wi yonent bi xalloon mu mokk sama mbay ci mbay mu kenn musul bay wax nañ ne seen xel ak seen xol ak seen xalaat def na congrès génne nañ ca lu concret nee ñu foo joxoñ foofa lañ jëm góor gi alxaaji maali xari saar ba fa nekk di sa muxaddamu papa xar mu jar ñaar fukki junni la yeewi jox ma sëy nu muy seede la ci xajul ci oto bi ba fa laa ko bàyyi dama wax ne ku dem ci pénc mu mësula dem nag ñu may la fa fasu naaru góor am na ku la fa jiitu dagaanal la ko yaa ma yóbbu woon njànge ci jàng ya boole ma ak sa rakk alxaaji Saidu Nuur ak sa rakk alxaaji Sidi Ahmed si kero summi na mbub mu mu soloon xëpp ma ko sëñ Mamour mii laa ko joxoon bés ba moo dellu si waat nga renouvelé ko te waxoon naa la ca Tiwaawan si ni la li ma gën a saf ci yow sa wax dafa doon mbokkum sa jëf sa wax ak sa jëf dañoo doon ay mbokk lan laa bëgg a wax waxoon naa la ca Tiwaawan ca gàmmu maam Roqaye si ni la li ma gën a neex ci yow moo di sa wax ak sa jëf dafa doon ay mbokk ndax bare na ku jàng wax ba mokk nga def ko fasu naaru góor tàggat ko boo soxlaa rek takk ko teg war ci luqi ci nopp jàmbur fakkatal ci nit sëlëm ci nit xëpp ko ci kaa nit ñu yeewaat wax muy fas muy riw fas moom moom moom wax nga yeewaat ko ci sa ëtt ni musuma dégg mukk nga wax njaaxum musuma dégg nga xalaat njaaxum doo ko def doo ko wax doo jànni nit doo toroxal nit doo gannaaweel nit te kat Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz mënoon na laay jur nga mel nu la neex te kon yàlla def lu ko neex tegtal bi moo di yonent yàlla Ibrahim alayhi salaatu wassalaam yàlla dafa am yu mu ko sant mu matal ko suñu borom ni ko inni jaayiluka linnaasi imaaman def naa la ngay njiit ci nit ñi lu xewati ci diine daañ la tudd qaala wa min durriyati ibrahima ne yàlla boo ma falee nag booleel ma ci samay doom ak samay sët suñ borom ni ko xaaral bañ mel ne yow wala ñu bëgg li nga bëgg buñ jaaree feneen du ma def nii kat la yanaalu ahdiya zalimin kon cheikh alxaaji abdul aziz mënoon na la meññ nga def lu la neex te kon yàlla def lu ko neex waaye amul sa benn nawle wala sa benn taalibe bu la xool ba jëppi la sëñ Maodo fees nga dell ak ngor fees nga dell ak liimaan loo wax moom nga nar doo ne waaw waaw mukk nar déedéet yal na yàlla guddal sa fan yal na la yàlla may wér yal na la yàlla dolli sutura man de tànt yi ma yoroonu bari na waaye mosuma dem buñ ma santul yaa ma yóbbu Fatick yaa ngi ko bàyyi ci sama loxo ba léegi yaa ma indi fii yaa ngi ko bàyyi ci sama loxo ba léegi yaa ma yóbbu njànge yaa ngi ko bàyyi ci sama loxo ba léegi yaa ma yóbbu njaareem yaa ngi ko bàyyi ci sama loxo ba léegi yaa ma yóbbu mbakke yaa ngi ko bàyyi ci sama loxo ba léegi yaa ma yóbbu yoof conférence birki démb yaa ngi ko bàyyi ci sama loxo ba léegi te da nga woo nga ma benn bés jël sama passeport visé ko pour ma dem Italie yàlla dogalu ko sëñ Maodo li nga ma yéene xam naa ko bu baax a baax a baax te baadoo la képp mooy def luñ ko defal mu ne yeyoo naa ko maa ngi lay gërëm ah sëñ maa ngi lay gërëm maa ngi lay gërëm maa ngi lay gërëm maa ngi lay gërëm waaw maa ngi lay gërëm waaw waaw la béy Sëriñ Maodo nee na xar mi taxul xéer gee tax seet ngeen boobu jinaas xar mi taxul xéer gee tax tuuti kon muy poésie de ñu ngi nuyu Pape Cheikh di nuyu waa daayira bu baax di nuyu muqaddam yi di nuyu kilifa yi nga àndanteel jóge ci sunu naanu waay suñu wasila fadilatu Cheikh Alxaaji Abdul Aziz Dabaax atala allahu amrahu wa xaqaqa allahu ala yadayhi waxdata ummati muhammad yal na ko yàlla may wér yàggal ko fi dolli koo tëbb mu yàgg noo tëbb ñu ngi nuyu jigéen ñi bu baax di leen sant di nuyu mag ñi ña cay góor ak ña cay jigéen di nuyu ndaw ñi ndax sa pap xalifa nee na radiallahu taala anhu nee na ndaje boo ca demee am ndaje soo ca demee fekk ñuy góori kese nee na ñibbil nee na soo ca fekk ñuy jigéeni kese ñibbil nee na soo fekkee ñuy mag yi kese ñibbil soo fekkee ñuy gone yi kese ñibbil ñu ne ko lu tax mu ne góor yi kese mën nañoo lijjanti dépense waaye mënuñoo togg togg gu rek le nee na ndaw yi kese ndaw yi kese mën nañu yëkkati lu diis waaye mënuñoo xalaat lu sori ndax kenn du muus lu ëpp say at nee na magi kese mën nañoo xalaat lu sori waaye mënuñoo yëkkati lu diis nee na jigéeni kese mën nañoo togg kat waaye mënuñoo lijjanti dépense bu sax nee na bu sàmbaraaxee ñëpp nekk fa nag neel yaax ca biir te gàmm gi ñëpp ñëw nañu waaw ñëpp ñëw dañu sëñ bi ñu sant yàlla bu baax julli ci rasulullahi di ñaan yàlla yàlla defal ñu ragal yàlla ndax mooy li gën a jafe te boo ko xasee am lépp sotti na boo ko ñàkkee lépp yàqu na xam-xam joxe na ne jant bi nekk na yaayu àdduna bi yépp jant bi nekk na yaayu àdduna bi yépp àdduna bi yépp di dépendre ci moom pour dund ndax xam ngeen énergie fu mu yeggul ñooñe dootuñu dund kon jant bi yaayu lépp la waaye nag déparé wul ci jant ba ci yàlla la déparé allahu nuuru samawati wal ard waaye noonu jant bi nekk yaayu monde bi yépp noonu la ragal yàlla nekke yaayu jikko yu baax yépp jàmbaar joo gis boo ko poussé mu ragal yàlla tab boo gis boo ko poussé mu ragal yàlla ku maandu koo gis boo ko poussé mu ragal yàlla yàlla wax na ko ci alquran fa ama man aata lu mu ca teg wattaqa yàlla nee na ku yëkkati alalam di ko dépensé ci l'islam te boole ci ragal yàlla ñu xam ne kon yooyu ñaar seex lañu kon tab boo gis la ci njëkk a juddoo mooy jege na yàlla jege na nit ñi jege na aljanna sori na safara yàlla nee na ci alquran ya ayuha alladina amanu kunu qawamina lillahi shuhadaa bilqist wala yajrimannakum shanaanu qawmin ala ala taadilu iadilu huwa aqrabu littaqwa yàlla nee na sa noon bi nga gën a bañ wala moom mu gën laa bañ cheytaane dox seen diggante ñu nattu la ni la kaay seere ko nee na nooneel ga bu mu tax mukk nga sànku sa maandu te ca seede ga nee na seedeel ko ragal yàlla seedeel ko lu baax ndax looloo gën a jege ragal yàlla kon maandu te ak ragal yàlla ay seex lañ yàlla nee na ci alquran yéen julit ñi bu ngeen di jihaad seen noon yépp complot leen wut ay gànnaay di tërali pexe in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a nee na su fekkee da ngeen a muñ te boole ca ragal yàlla pexeem noon ya daal di sooy kon ku ragal yàlla nekk jàmbaar ku ragal yàlla daal di maandu ku ragal yàlla daal di tabe kon yàlla nañu yàlla defal ragal yàlla yaqulu lmaru maru faidati wa maali wa taqwa allahi afdalu ma stafaada nit képp fu mu toll danaan sama alal naan la ma moom naan la ma sañ naan la ma denc waaye lëggaloon ci lu muy sàkkoo jëriñoo ragal yàlla ci gën xamuloo ni dem màkka du kaala gu rafet dem màkka du mbaxane dem màkka ragal yàlla la yàlla nee na yóbbal booy yor ragal yàllaa ko gën wa tazawadu fa inna xayra zaadi taqwa wattaquni yaa ulil albaab tabaski jële di ñëw yàlla du lekk yàpp wa yàlla du naan deret ja lan yanaalu allaha luxumuha wala dimaauha walakin yanaaluhu taqwa minkum waaye ragal yàlla ga tax nga ne ñokket ñàkk cent mille franc ci xar ni ko dett ren bi tudd ca turu yàlla tuur deret ja jaamoo ko yàlla adore yàlla loola mooy wane ni yow mii dangaa ragal yàlla yàlla yi kontaan ca ba béjjën yaag tànk yaag yax gaag yuq gaag lépp dañ koy teg ci sa balance ëllëg mu gis gann ñu dundalaat ko nga war ca yaag say soxna loola nag du wund buñ koy rendi borom kër gi daal di taxaw aawo bi topp ci ñaareel bi topp ci ñetteel bi topp ci ñeenteel bi topp ci taaw bi ñëw teg ci loxoom ñuy jokkale déedéet rendil rek tegale loxo ba yoonu mbir ma nekku ca waaw waaw yoonu mbir ma nekku ca waaw dañ ko def rek ci ragal yàlla waaw dañ ko def rek ci ragal yàlla ragal yàlla moomu nag léeg-léeg muy màgg ci nit ba jëmm ji jëmmi nit lay doon waaye jëf ja dootul doon jëfi nit ragal yàlla googu léeg-léeg muy màgg ci jëmmi nit ba jëmm ji jëmmi nit lay doon waaye jëfam dootul doon jëfi nit maa ngi joxe exemple ci koo xam ne ñëpp daañ ci d'accord muy Cheikh Alhaji Abdoul Aziz Dabakh lii may bëgg a wax da fekkewu ma ko waaye gëm naa ko ndax dégg naa ci ku ma doy muy Serigne Mbaye Sy ibnu xaaji Mouhamadul Mansour mu ne dafa toog jeg saaw ak papaam nee na ba yàgg papaam jekki-jekki di jàmbat naan dafa tàng dafa tàng dafa tàng dafa tàng ba yàgg rek góor gi jekki-jekki di tuur rangooñam nee na yëngu ba dal mu ne ko papa lii xew su fekkee mën naa laa laaj lu ko sabab nee na mu ne ko li ko sabab moo di yàlla moo bind jamono instant bu nekk moo xam luy doy ci sedd mooy xam luy doy ci tàngoor yàlla wut sedd wut tàngoor ci période bii yàlla limité tàngooram fi ko neex man alxaaji abdul aziz ma dugal ci sama gémmiñ ba naan dafa tàng lu ci sama yoon booba yëg yëg ragal yàlla daa tax su dee waare fii dafay mel ni gàncax bu yëg ak tawam alxaajablayi fi maarik danaa jeex ci yàlla takk ba doo gis mbindeef ndekoon doon waar tey ñu rek wut doon ku jóg jëm ci yàlla la def am na noo kii du dox di si boor du jaayit waram du bodde du jànne du bodde dafay yërëm ndaw teral mag teral ab xolam na ñëpp ni nii amul naar amul pel séeréer ma walal ku ñëw abdu xatte ca kaw jox cëram su ma waxatee lu mel noonu rek defaatal lu mel noonu wal kàndañ ci ragal yàlla ba yëg-yëgam yegg foofu jëmm ji jëmmi doomu aadama lay doon waaye jëfam dootul doon jëfi nit laa yazaalu abdi yataqarrabu ilayya binnawaafil xatta uhibbahu nekk nit ki yaa ngi koy mën a observer di xam li mu am li feeg yàlla mayeegu ko cofeel spécial am na xeeti cofeel yoo xam ne nit mi ngi koy amee ci nawaafilul xayr jokk bokk dimbali ku sonn tasaare xam-xam xettali ku doy ku doyadi laayu biir nit tabe ci nit ñi maandu ci deri jàmbur yi yëwan ci ñoom di dem di dem ba yàlla bëgg la bëgg goo xam ni mahabbatan xaasa la mu ne nag fa ida ahbabtuhu bu ma soppee jaam bi cofeel googu man yàlla kuntu samaahu alladi yasmau biha nee na damay daal di nekk noppam loolu am na ay détail wa basarahu alladi yubsiru biha nee na ma nekk bëtam wa yadahu allati yabtishu biha nee na ma nekk loxom ba muy jàppe wa rijlahu allati yamshi biha nee na ma nekk tànkam ba muy doxe fii nag bu fi nit ki yegsee la in saalani bu ma laajee la otiyannahu ma jox ko la mu doon laaj wala in istaazani su nee naa ko musal ci dara la oizannahu musal ko ci kooku nag martaba la su ca nit ki yeggee nag benn seconde xelam du ko rëcc mukk génn xalaat lu dul yàlla am na ku ci bind ni walaw xatarat lii fii siwaaka iradatun ala xaatiri yowman xakamtu bi riddati benn instant su ma sama xel rëccee xalaat leneen lu dul yàlla ma yóbbu sama bopp ca kade ba atte sama bopp ni murtat naa werante wuñ ni maqaama yooyu góor gi romb na koy dem jamono nag dafa naqaree waxe loo wax ñu ne ñoom jiw lay wax loo wax ñu firi ko nit ñi dañuy firee firee firee firi bay firi seeni toilette waaw waaye nag mënul ñàkk nan wax lu baax ñu din ci wax lu bon rek nan wax lu baax ñu din ci wax lu bon rek bu ëllëgee ñun suñu wax noonu koy teg ci waqulu linnaasi xusnan yàlla nee na jaru nit ñi bu ngeen ci dee bind nay lu rafet bu ngeen ci dee wax nay lu rafet su ngeen ci dee àddu nay lu rafet ku xam leneen wala nga mën leneen yàgg sa boroom nun lii leen xam lii lañu jàng ci kër Cheikh Al Hadj Malick lii mooy sunu kaddu ci biir lii mooy sunu kaddu ci biti insha allahu si lii lañ fas yéene ubbee gàmm gi fas yéene départ baadi taain du fooku de dafa am lu may bëgg a wax rek
وهم لإطفاء نور الخالق اجتمعوا كي لما فشى خبر الإسلام في الأمم يومنا لابثين وخلقي لقيتنا عمرا لما مشى خطا والإسلام في الإيمان اجتمعوا مولانا لما بشر فشى خبر الإسلام في إبني
sëñ Maodo Chérif Wade sa xarit bi toogoon nee na junni bii nee na moo ko def ci xar mi jox na xale yi junni ni moo ko def ci xar yooyu waaj a ñëw man nag damaa bëggoon ñu gëmm ma denc sama bos cheikh alxaaji malik si téeréem bii tudd xilaatu dahab fii siirati xayril arab man na li ma jàng barewul waaye gis naa benn téere boo xam ne naw nañ ko lool ci wàllu siira ci monde arab muy alaahami si siira waaye téere boobu yépp boo ko seetee matul benn bunt ci miim yi waaw tërkiis bi Cheikh Al Hadj Malick di def moom rek a koy def ni muy taalifee moom rek a ñuy taalifee te sa maam dafa am lu ko yàlla may lu jafe taalifkat yu bare dañ koy dugal xalwa wéet xalaat door a bind moom nag mësul dugal xalwa benn taalif taalif daawu ko gàllankoor sax ci njàngale day taalif di jàngale waale day taalif di jaamuwaale yàlla day taalif di zikkaraale day taalif toog ak nit ñi di taalif di wax ak njaboot gi di taalif di yeewi gan ñi di taalif di wax ak nit ñi arud arud fànn bu jafe la dafa yónnee ca mam ma jaxate kala di àbb mu bayinul ashkaal kooka ni ko soo demee ne doomu soxna du àbb téere da koy taalif doomu soxna du àbb téere daf koy taalif ndaw la jël si wax ko sa maam mu daat ne kon nag nañ ko faf taalif ne fa xamdan liman alima shiara ahmada alayhi salaamaawul mudaamani sarmada فيا واضع الميزان بلغ سلامتي صلاتي عرض البدر سرك أحمدا على زينة الأشجار والخلق والثرى مع الآل والقافين آثار أحمدا أرتب ترتيبا دوائر خف شلق وأبحرها كنت ائتلافا لمن هدى أطل مددا وابسط ووفر مكملا مهزجة رجسة رملة سرعا إلى اليد وسارع خفيفا مضارعا لربنا ومقتضبا متس تقرب الاهتداء وإن وسط خص السكون فسميه بمفروق وتد لا سبب خفيف تلي سبب ثقيل دهرة وتد مبروق هدى وتد مجموع lépp daj lépp daj ci lum waajul duggalu ko xalwa waaye sëriñ bëgg naa ci man jàng gannaaw ba mu siiw liisee donn nga loolu ci sa maam doo waajal taalif maa ngi fàttaliku Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si di def conférence Serigne Maodo ñëw fa rek ab kayit ni ko ayaa faylasuufa al asri yaa ruuxa qawmihi fa inna bi amrillahi fiika nubayaaw walim la waqad jab